Sidi. waaw Jami jaar naa la. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu di la baalu àq di la wax déwénati yàlla ñu yàlla boole baal ñu fekkee ko at yu bari di nuyu sama tons Grand Médine ah, vraiment di leen ñaanal jàmm comme ni ko Omaro defee léegi balaa ñuy waxtaan di seen sëy bi moom Sénégal ñëpp ci kontaan ndaxte yow it xale bu am jom nga waaw dañoo débuté ndoo mhm. ma daan nekk ravin ndeysaan di way te ànd ak ndey geeg ga Gueye di way waaye nga nekk nit ku yàggam personnalité yàgg diñ a ah, defar sa image nag fii ci réew mi donc ñu ngi lay ñaanal yàlla sa sëy yàlla na barkeel loolu kontaan nañ aussi tey ci ci ci ndogu bi voilà. am na solo euh, ñaan yi nga ñaan yàlla ko suñu borom dégg it balaa déwén yow yàlla may la soxna su baax yow it bu lay taajal ay ndogu euh, tey ki nga ah jot na. jot na gis naa léegi sama sinap ku ne ma nag wax dëgg yàlla ci des. message yi ngi bëgg a bare incha allah balaa déwén dinaa yeew nag décidé naa. Eh. waaw décidé naa. après Grand Médine day tax xam nga mbëri kenn bu daanee ngeen bokk écurie day aw ci yàlla bi. Mm-hmm. après Grand Médine kon ko takk na day def nii dama aw ci yàlla bi mu wàllu ma. <laughs> boo fayee taxaw mu jaar ci yàlla yi Sidi eh, nga ñëwoon ñi sa diggante ki nga xamante ne mooy dégg daaj. Eh, ak li nga xamante ne mooy mu ngi koy def di fëddali seen kóllëre mm-hmm. ak sa diggante ki nga xamante ne mooy sa papa waaw dégg ci dégg laay commencé dégg daaj yàlla dafa dogal mu nekk suma xarit. Mm-hmm. nekk suma rakk nekk suma lépp ñuy ànd nag mu rafet lool te dara ñaawut Omaro xam na ni weeru koor gi chaque jour sama xarit yëpp sama kër la ñuy ndogoo sama staff ñi nga xam ne dañ maa topp un an di ma liggéeyal ñii di ma musical nekk ci sama ginnaaw bu weeru koor bi jotee ñu jël vacances ñoom ñëpp sama kër la ñuy ñëw di fa ndogoo démb rek Omar Fala ndogoo ci anniversaire bi donc tey bu ñu ko bàyyee bu ñu fa bàyyee xarit yeeg njaboot gi ñëw fii dégg moo ñu ko wan ak Omaro mi toog ndax ñun Omar mel nañ ci moom noo xam ne ku ko bëgg ñu bëgg la ku ko bëggul bëgguñu la. noonu la ñu àndee man ku ma bëgg bëgg na la ku ma bëggut bëggu la mais dégg yàlla moo dogal Omaro boole ñu mu nekk nag sama xarit nekk sama raq baax loolu. barke Serigne Salim Mbacke dafa am benn année ma toog ba ci yàgg bay fajar jot nii rek ma ne Omar. dama sama xel dafa nekk sama yaay maa ngi dem Tamba seeti ko vite ma jug rek dégg na ma koy àndal ma ne ko non ànduma kenn man de am naa habitude di di voyager man kese aj samay vite teg samay soo dem dégg jug dugg ci néeg bi wax ak Omaro génn ne ma jot naa ndigalu Omaro dama lay gunge te xam nga Tamba du fii comme am na ay yitte yu mu waroon a dem doxi mais nag loolu marqué ma ba Omaro ngi nii toog dama ko wax ko ko. moo ma gunge aller ak retour boobu ba tey sama yaay heure bu ñu déggantee daf ma naan ana dégg xale bu baax boobu mbaa mi ngi ci jàmm mbaam mi ngi ci lii mbaa mi ci lii di ko ñaanal nag. donc moom bu bu bu defee geste bu rafet bi moo ko Omaro doorandoo nekkandoon ci cant gi Omaro nekk kilifaam nekk léppam mu nangul ko loolu donc tey yàlla dogal. Euh, mu mu am mu am initiative bu rafet bi ne damay def ndogu waaye nag dama ci sargal suma xalifa dama ci sargal suma mag dama ci sargal suma baay moom laa bëgg a defal ndogu mu mag yëkkati xaalis bu bari nag def ci. donc dégg bu defee loolu man la ko defal bu ko defee Serigne Cissé la ko defal bu ko def defal na ko Fallou Lam defal na ko Papa Guèye mais nag defal na ko Matar Diop ak 5 gépp ndaxte ñi fi ñi man xam naa ne bu ko waxoon ñëpp kenn du fi xaj. daa tànn quelque nitu omoro rek ñi nga xam ne ñii dañoo sës ci moom mu woo leen donc dégg ñun ñi ngi lay ñaanal yàlla jàmm ñi ngi lay ñaanal yàlla salaam lii nga mën nii nii nii nii déwén xaalis bi nga jël def ko ci fi mu jógee yàlla na fa ay milliards sax waaw ndax xaalis dafa neex ci xool nit bu ko jóglee di la ko jox di ko def ci sa ci sa jëmm ji te kenn ku nekk am ay yitte yàlla na yàlla defal jàmm ma fekk fi ay nit yu baax nag ku ci mel ni Serigne Cissé ma la toog bi taalibe Serigne Babacar Sy bi sama xuloowaale waaye baax loolu nag nekk nit ku oyof xam nga sànq ba tey bi nga duggee gis nga kaf fooree te kilifa la nag waaye lu ne laa koy wax kaf moom foo moom moom moo ñu wan loolu muy nit ku baax yàlla na yàlla guddal fanam muy nit koo xam ni ñëwul fekk ay maamam def lii mu ñëw def leneen ci ay tànki maamam rek la topp donc yàlla na ko yàlla defal jàmm ak sutura fàllu laam yàlla na yàlla wéral baat bi mbokkum day Cheikh Mbaye moom it tamit day nit ku baax fàllu waaw ah, day nit ku baax léegi la ma dugal ci néeg bi bi ngeen ma bi ngeen bi ñu ndogoo wooma woo ma ci néeg bi jox ma air boo xam ne mosuma gis loolu dama lii après côté dama bëgg nga way ko loolu teraanga la waaw teraanga loolu loolu ku la bëggul du ko def te teraanga du tuuti air boobu kenn dàq ko way mënoon na ko wayal boppam ñi nekk ci dëkk bi bëgg fàllulam di ay woykatu mbalax bari nañ mais bu nee ma lii yow laa ko yéene bërki démb la ñëw ci sama xel ma enregistré ko vocal kaay ma tegaloo ko ba pare woo ma ci sutura. tegal ma ko ne ma lii yow yaa ko moom yow yaa koy way bind si beeg yëpp donc man ku ma defal lu baax ci biir buñ toogee ci pénc mi dama koy wax. donc Fallou yàlla na yàlla defal la jàmm di gërëm sama mag gee toog muy Papa Guèye di suma mag di suma xarit di sama chef protocole sës ci ñun tërëkkuñu nag yàlla na yàlla defal ko jàmm may tëjee ci Omaro Omaro moom weesu naa fi may toggee ci mbooloo di ko gërëm ndaxte damaa yëkkati lépp loo xam ni day mbirum kilifteef day mbirum xarit day mbirum am di jàmm day mbirum xel jël ko lépp carrière lépp ne ko Omar mu ne ah, mën a ko am bu doxee yow la léegi nag bu yàqoo yow la te nag ku ne xam na ne ku yokkut yaa wàññi bi ma ko dénkee ba tey bu dee yokku na sénégalais yaa may xool ndaxte ci sit bu nekk ci télévision bu bu mag lañ nekk di waxee bi ma ko joxee Omaro ba tey bu yokkee sénégalais yi xam nañu bu wàññeekoo sénégalais yi xam nañu ndaxte fexe naa tey ba musique Sénégal doo ne doo doo doo doo lim ñaar te tegoo ma ci fexe naa ko fexe naa ba musique Sénégal moom munoo fexe ba bokkuma ci te damay doog a commencé defaguñ ci dara mais tey ji Omaro ñëw na indi dooleem suma producteur Matar Diop suba teel suma gée suma manager géeki staff bi ñoom ñëpp indi nañ seen doole mais moom li ma neex ci moom dafa nekk mag boo xam ne daa ñëw uuf ñu mënoon na ñëw tàkkali ma ak samay xarit mais au contraire bu ma amee problème samay xarit sax Omaro moy taal otom 4 heures du matin dem këram. waxtaan ak moom siidi seen siidi la ñun dañoo ñëw di appuyer dañoo ñëw nekk ay kilifa xama nga kooku tasul ànd bu ma jotee woon ak papa Guèye mi moo koy jëlee këram woo ma sama kër ma génn mu teg ñu ci oto bi nañu ay xarit ngeen yéen a doorandoo yéen a lii yéen a defaloon lii sama xarit yëpp bëgg ko amuñu ci moom sago ñoom Baye Niass Ismaïla Mara ah, ñoom xarañ ab laay Guèye ak musiciens yi ñëpp sama musiciens yi dem nañ ba ku ci am sax problème doomu woo Omaro ngay woo. kon loolu moom moo ko jëf biir 5 étoiles maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér yàlla fajal ko lépp lu mu bëgg ci xolam rek suñu borom defal ko te dina ko am ndax man fii ngeen toog ni yàgg naa fi toog 3 heures de matin man moom ak yaayam yaayam gërëm ko ci sama kanam waaw te nag ku sa yaay gërëm mbedd mi àll bi di wax loolu ay waxi waa turbine bi la mais joueurs yi ciy fubal bu ñu nag bu ñu nangoo sa mën a fubal loolu rek sag la waaw moom nag ñi mu bokkal askanam ak fameem ak yaayam ak papam ñëpp gërëm nañ ko sedd yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla may ko gudd fan yàlla nag lii mu ma yéene di ma tuddee Youssou nduur bu ma demee ba di raw Youssou Ndour it comme ni mu ko ñaanee yàlla ko fi fekk yàlla bu mu ko uute bu ma demee bay jëli ay ay disque d'or di jouer Bercy ak Zénith wémbaleeg fu ne yàlla mën na ko te benn yàllaa fi nekk di maye. benn yàlla képp a fi ne yàlla bi may Serigne Cissé mooy may Médoune mooy may dégg mooy may fàllu mooy may jami moo may may yàlla yu bari amuñu benn yàlla moom yàlla boobooy maye te moom moo ne li ma yor dafa bari te soxlawu ma ko te dama koy maye pour yéen la te ku ci sant ma dool la donc lim ñu jot a may balaa koor gii sant nañ ko ci bu baax te bu ñu génnee ci koor gi yàlla na dolli waaye buy dollit yàlla na fi fekk sama xarit yi ma débuté ndool fekk fi suma yaay ju baax ji fekk ci suma papa ju baax ji fekk fi képp koo xam ne rek soppee Sidy Diop nga bëgg ma mës maa ñaanal mbaa nga mës maa bëgg supporté ma maa ngi lay ñaanal yàlla na fi fekk yàlla na la fekk di tëjee kàddu gi nag kàddu njéggalu xam ci koor lañu nekk képp koo xam ne fan sa Sidi Diop nga wala ngay soppe Sidi Diop wala ngay sénégalais ak foo mënta nekk Sidi mës a wax wala mu doxee nu la neexul rek mm-hmm. maa ngi profité ci weer wi di la déwénati di la baalu àq ay nit lañu duñu jinne duñu malayka duñu xutbu samaan ay nit lañu dañuy tooñ dañ ñuy tooñ waaye ñi ñu tooñ jéggal nañ leen koo xam ne nag sii di tooñ na la maa ngi lay jéggalu di la wax baal ma àq te yàlla nañ ko fekkee déwén yu bari. am na solo koo xam ne sii di na la mu ngi lay baalu àq te di la ñaanal fekk ko déwén yu bari waaye sii di balaa maa jógee ci yow euh, artistes yi mu mel ne fi mu ne nii nag weeru koor bi leen xaw a tënk yéen ñëpp. am na suñoo xamante ne maanaam euh, niñ tàmmee joué ji lu si bari da leen di manqué. da ngeen di tënku da ngeen mel ko xaw a tonk ci baat bi. dina la tënk mais nag ci ngay gën a liggéey. comme man tey ji nii may waxee yow nii nii nii bi ñu commencé koor gi premier jour bi rek enregistré naa ñaari morceau. premier jour bi rek enregistré naa ñaari morceau benn bi ma ma ma woy ci suma yaay benn bi ma woy ci émigré yi nga xam ne ñu ngi bitim réew di daan seen doole. te ñu war fa ñëw après koor gi dem jouer leen ma rendre leen hommage balaa ma faa dem donc koor gi dalay lay permettre nga gën a liggéey. ndaxte ci guddi gi boo ndogoo ba pare woo say musicien ngeen daje studio nga tëju nga liggéey nga profito seeti say mbokku profito dox sa yenn course yi voilà am vie de famille tuuti quoi donc ñun artistes yi koor gi daf ñu arrangé ndax ci ngay mën a tëju ci ngay noppalu ci ngay liggéey voilà. ñu gis la sa soirée bu mujj yaa ngi naan euh, koor gi bu jeexee. waaw réew mi dina yëngu waaw parce que yi ñu waaj dafa neex. waaw dafa neex. yi ñu waaj dafa neex te damaa gis ni yi ma génne yëpp sénégalais yi dañ ko bëgg te xamuñu yi gën a naqari laa génne. barke Serigne Saliou Mbacké yi ma génne yëpp sénégalais dañ ko bëgg te yi gën a naqari laa génne. yi gën a neex dama ko réserver denc ko rawati nag air bu bees bi judduwaat tey sëñ Fallou Lam jox ma ko boobu moom bu non boobu moom bu génnee réew mi toj musuma gis loolu laa non kéemaan gu rëy dégg bi mu ma tëjee ci néeg bi ba woyal ma ko non dama doon jooy man xam nga kenn du ma nax ci ay way mais dama ko déglu sama xol bi sedd guy maanaam mu bind loo xam ne lii day génn rek nga xam ne lii it la non kenn musul gis loolu fàllu yàlla nga am jàmm lii moom bu génnee réew mi toj barke alxuraanu karim ba pare tamit dégg nee na am na tamit beneen bu ma beneen bu ma bindal ah am na beneen bu ma bindal ah man daal jàngkat yeeg may sot sama question bu mujj Sidi sama question bu mujj sénégalais ñoo koy laaj tontu Médoune mooy Sidi Diop lu tax nga lu tax ma doj. waa mais boo nekkee ci ci ci ci ci musique da ngay doj. Ah. ah mais si boo nekkee ci musique mën ngaa am yar mën nga joxe cër bi mën ngaa joxe lépp mais nag bu lépp passé dangay am da ngay am. waa mais yaa ngi yaa ngi nii Jami Gueye macha allah macha allah Jami mu musaana dugg ci ci ci géew ba ne bëxërñal ba def ñaari njàpp. tourné xool tëggkat yi wàcc ñaari tàng ne leen nii mais da ngay sa xool day sedd guy ah mais fii da ngay xam ne kii li muy def nii def cee boole ak feeling waaw waaw da ci boole ak nit looy def te amul filing amul charme. baaxut waaw. am na solo euh, moo mu nekkoon loo xamante ne sénégalais bëggoon nañ ko xam mooy Sidy Diop ba ci côté style euh, vestimentaire am da cee dooj ci côté communication bu waxee da nga naan kii est-ce que du mag moo ko yar te sûrement sax boo dégloo ay waxam da ngay xam dafa yaroo ci ay keppaaru mag macha allah ndax il communique bien mais sa diggante Queen Biz bi nu mu ñëwee liggéey beeg yooyu. waa Queen dafa yàgg nekk suma jigéen nag yàgg nekk suma xarit. ñu xamante bu yàgg. waaw ñu xamante bu yàgg boobu maa ngi dëkk kër mère na ba Fall. kon ñoom Ibba Sey ma koy nuyuwaale suma maam Gaynde Waalo di ko dewee ne teg suma papa Ablaye Sey ak Ibba Chéri de ko famille Seyeen bi yëpp ñoom El ma taar donc moom foofu la ñu xamante bi may dugg studio nag bërki démb ñuy def benn affaire ma sentir ko ci woo ko moom tamit mu fil ko fekk moom it yàgg na ma wax ne bu ñu defee benn affaire dina nice de far ñu far ñu far ñu far ñu daje studio The ñu toog bind texte yi génne ko mu neex parce que ñun li ñuy def pour bégal sénégalais la. ci même jour bi lañ ko defar 9h lañ fa daje liggéey ko ba ay 6h du matin. après ku ne ku ne dem quoi mais liñ ci jublu woon am nañ ci am nañ ko ci parce que teaser bi rek déjà dugg na dugg na million de vues te clip bi pareegul incha allah après Korité lay génn. torop ay ca mi ngi noonu euh, rendez-vous de Sidi Diop mu ngi noonu mu jox ko fan si ak ñëpp ñi nga xamante ne dañ koy bëgge dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ne yëkkati na ko tubaarikàlla macha allah waaye comme que nag ki nga xamante ne mooy euh, euh, sëñ Omar Wogé laa koy wax tey ndax tey macha allah bañ ñu doon koo fekk mu nekk ci wér du bu sori comme que pareegul woon wér na dama ko doon bàyyi mu àggali wér dama waaye fi mu ne daa mel ne mu ngi ci cëppaandoo ko Omar ma dellusiwaat si yow. yàlla ko dund ko dund ñaanal naa la. ah waaw taw bu góor boo tuddee Serigne Saliou ci lu yàggatul dara incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko def kontaan naa. dégg nga kàddu yi am solo yi nga xamante ne sa na ko jëmale ko ci ay fansam waaye jëmale ko ci nga xamante ne ñooy Sénégal. dëgg la waaw am na solo xam nga Sidi moom li ma la sànq rek xale bu loo xam setee moom yar man li muy def am talent parce que talent rek a jar yàlla mooy don may sunu borom ci yow. nga di ko yëg waaye foo jëfee wala nga wax ñu xam ne lii ma yàlla te loolu la si di li ko dese leen rek la mooy dund gudd fan wér. nu wóor na ma ne bu dundee gudd fan wér incha allahu li ñu ko yéene danañ am ci moom lu fori suñu jot parce que la koy ñàkk mi ngi fi waaw gannaaw moom li mu amal boppam te yàlla may ko ko nangu naa joxe cër parce que gis nga jame sii mag rek laa ko mën a mag. mag rek laa ko mën a man mënu ma ko jur mënu ma nekk nijaayam mënu ma nekk tontoom magam rek laa mën a doon waaye tey cëru maam sax Sidi jox na ma ko. waaye ñu jékki-jékki su ma tëll du ma wax tur nag Cees a jógee dama koy bàyyi mu nuyoo nuyoog bàyyi fa. lam yabdu mislul Mustafa Muhammadin sirran wa jahran fi bara ya samadi lam yabdu mislul mustafa muhammadin sirran wa jahran fi bara ya samadi الذي عدي لكل سما يقود به ساهر والباطن من أتاه لله في كل الزمن خدمته عن الغياب عزبا ولزغادا مدى وسفر وخبالي بانا libaana kawnul mustawaa risaali kulli man qad fudiloo roosa xuma jabaaw foko kulli raqaba minu saxaaral xulu kullu man kaba huwa nabiyu wal rasuulu wal xaliilu wax wal abibu wal imaamu wal daliil bara axul badiixu min xayri jamaal wasanaxul xudduusu an xayri kamaal kaw nabi al muntaxa def leen ñu màggal Seydina Muhammad kawnu nabi al muntaxa Muhammadin xayril waral muxtaar inda samadi Cheikh Bamba mi ne leen ko jàkk bu kenn piis ku yàlla teral day tedd moo tax ba tedd na bayu sëriñ Saaliwoo borom jàpp ndala xabaana borom la gën borom daara yi ñaaru sëriñ Bamba mi ne ko jàkk bu kenn piis ku yàlla teral day tedd moo tax ba tedd na borom be ko jox ay may te may yooyu day lu teral na ci mboolem nit ñi gi tabe ëpp na waaja koy bëgg day bég waaja koy du jug ci rus ku buur yàlla alkuna waaja koy bëgg day bég ni ñu màggal sëriñ saaliw waaja koy bëgg day bégoo waaja koy bañ du jug ku buur yàlla waayo cam ka koy jeppi alkunaan ay faal illallah sina boo sona balamam njaay abo daar daar faal njaga laa ilaaha illallah daaru faal njaga laa ilaha laa ilallah seyna bootana balamam njaay abu daar daar faal njaga laa ilaha laa ilallah Seynabu soxna Balla Maam Njaay abo daar daar faal njaga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha faal illallah Moodu Yaaje ñi bisa kër baay nga dem nga doon ñaanam nga ko koore mu teexe mamaada kazamaaba aada koore mu teexe mamaada kazamaaba aada koore mu teexe maadu yaaje ñi bisa kër baay ngërëm nga doon ñaadam nga hamada kazamabu adakuri mutehe mamada kazamabu adakuri mutehe jërëjëf xam nga xam nga yàlla dafa dogal sunu teewaay fii ci kër gi dugguleet waaw loolu mënta ñàkk. loolu waaw loolu moom. Eh, eh. xam nga loolu xam nga loolu lu mënta ñàkk la ndax barke Cheikhul Khadim oto bi ma nga xamante ne moom la mu war maa fekk sama kër jël si ma mhm. dañoo toog ba mu kii rek mu soog ma wax ni ma du mën a ñëw. yàlla dogal mu boole ma ak sëñ Babacar mi mu taal otoom indi ma ba ma egsi te loolu lu baax képp la mënoon na ko cee bañ fekk waaye Omar dangaa doon ci ñun koo xam ne ñu may faral di wax fu ma mën a ne ci àdduna su ma ñëpp doon woo du ma ñëw yow su ma déggee rek ci yow boo ma ko waxut sax su ma déggee ci yow ñu ne nangam am na ci yow rek damay bàyyi sama yitt yëpp ñëw. ndax bëgg goonu bëgg te yàlla tax ne ko sëñ Cissé waxee léegi yow sooy bëgg nit doo ko bëgg ngir dara ndax koy bëgg rek li nekk ci moom fekk na yàlla def na ko ci yow ba noppi waaye bëgg nit danga koy bëgg te yàlla tax ba noppi da koy jàpp te yàlla tax dafa benn jour ma dem ay jàng yu ma doon jàng bi ma demee sama baat bi sonn mënumaa wax ma wax mënumaa mënumaa jàng ba sonn ñu lànk ne ma damay da ngay jàng keroog ma ne leen kon tey laay soog a xam ni bëggoo leen Cheikh mbay waaye li Cheikh Mbaye di def ngeen bëgg ndax su fekkoon sama jëmm ngeen bëgg su ma dikkee toog doy na sëkk. jarul sax may jàng rawatina ku mënta wax nag. ngeen ne ko far force da ngay jàng ba tax li ngeen sékkoon ak man sax joxoo leen ma ko kon tey laay soog a xam ne kon ndekete yen li may def ngeen bëgg waaye bëggoo leen ma kon lii mooy la sëñ Mbaye Jaxate waxoon ni ak pallu mu réeree ak folle ko nga ca kanam. lu yees dana ràpp xumbin woo fi gis dana tas waaw xam nga loolu àdduna la waaye ñu ngi ñaan yàlla sa borom taxaw la li nga bëgg ci sa àdduna yàlla la sa borom defal nga amee ko ni ko bëggee ci barke borom Touba te bu dara am ay coono nag bi ñee ñu fekk fi ñu baax ñi toog soxna Jami moom sunu xarit la mu yàgg ñoo bëgg yàgg ñoo bëgg ngir sëñ Touba mbuur sax daanaa fa ñëw di jàng su yégée ni maa ngi fa rek day bàyyi téem bàyyi léppam ñëw ci programme bi ba ma jàng ba pare muy soog a dem xam naa ne xaw na maa meera nag tuuti rek <laughs> waaye yàlla la yàlla defal jàmm Serigne Babacar sëñ Cissé moom nit ku baax ngi nii te bëgg sëñ Touba man li may wax ci sëñ daal mooy ku bëgg sëñ ngi nii loolu moom leer na ma moom waaw xam naa ne ku bëgg sëñ la moom barki Cheikhul ndax ñun ay murid lañu waaye ñu ñu bëgg a bari ñun tiijaan yeeg ñu seen yeeg xaadir yeeg ñëpp suñuy soppe lañu kon su ma ñëwee ba ci yow ne la ku bëgg Sëñ Tuubaa nga rek xam naa li tax ma wax ko ndax du benn yoon lañu ñu Omaro présenté du ñaari yoon te ba ni xamante du tey yàgg nga ma wax lu nekk te yàlla tax di ñu ñaanal di ñu defal lépp ñaani ñuy ñaanal nag gis nañu ko Omaro ko waral yal na la yàlla teral dégg daaj moom sama xarit la sama waay la waaye fan yii damaa xaw a bàyyi nag nee naa ko yow ci Sénégal waaw <laughs> sëñ Babacar kontaan naa barki Cheikhul Khadim إنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورا نبي العالمين Cheikh El Hadj Malick nii na bayu Serigne Babacar Sy Mansour sama waaja nee na innahu is arada law nashatana bilaay kenn du yonneen abana min noorihi nooran nabil alami Cheikh El Hadj Malick jàngu ba rëy na lay lay lay lay lay lay jëdey riir si kër la wóolu donnu na mbër Seexu Tijaan wa innahu is araada Allahu nashatana bilay kendu siiduna Muhammad abada min noorihi nuuran nabil alamin loolu laa ni naa ko barkeloo ci sëriñ bi kontaan naa yàlla leen yàlla teral ci barke Cheikh Amadou Bamba Omaro bég nañu lool yal na la yàlla yokk ci barke Cheikh Rafal yow sans waay nga barke Cheikh Ibra yal na la yàlla yokk te wéral la yàgg mboolem ñi fi nekk ñu ngi ñaan ci barke weeru tedd wi daal képp ku fi teew rek. yàlla na defal taw feex barke Serap Fall ah. la ce que man kay bésam bi bésam bis bi rek wax na ma ko waaye boobu damaa nekkoon ci côté côté rek waaye maa ngi jéggu lu baax xam naa bu sëñ Saliou ñëwee rek. incha allah <laughs>